2021 ñu ñëwaat ak yéen ceene ma ci ànd ak Lamine Seck borom Thiès Loro Sagata Petit Mbao Diourbel Diourbel moom dama goo tàngee dégg naa Diourbel dem fa làmb Forza Abdou ah, nga dëgg dem nga fee Tamba Tamba foofu laa eggagul Tamba kay. naa ne mi mel ci tàngaay. waaw man kay xam naa ne bu fa drapeau chef de l'état amee moom foog ma dem def fa trois jours. na nga def. maa ngi fi lépp jàmm. alhamdulilah naa nawet sant bu baax alhamdulilah. waaw yàlla yàlla eggale ko ci jàmm ak salaam ñëpp am nawet. waaw yëpp ñor. lépp ñor yaakaar naa ni nekk na loo xamante ne ni ñaan lu am solo su ban journal lañ koy ubbee sax. journal sunu làmb lañ koy ubbee waaye nag waa VS FM dañ leen di nuyu ak Mbirkilaan FM duñ leen fàtte ndax revue de presse bi comme ni ma koy waxee chaque jour rek boo demee Gambie da koy déglu ci rajo bi ay yoon yoon muy répété foofu ci VS FM di jëmoo ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit Babacar Sarr borom Mbirkilaan FM di nuyu doomu ndayam ki nga xamante ne moom mooy Abdou Darame waaye nag du fàtte ki nga xamante moom mooy El Hadj Ndiaye borom Dia koy nuyu bu baax a baax tey nag revue de presse bi moom laa ko mooy Omar Diop. El Hadj Ndiaye borom Dia. waaw borom woy wuree. Elage Keita bu yàggul dara génneel na ko way mi ngoog moom ngi noonu kooku foog nga jël ko sax interview ah. incha allahu rabbi am na solo lamin journal bu suñu làmb daal di fësal doomi dégool mm-hmm. Boy Niang numéro 2 bokk ci génération boo mm-hmm. bokk ci ay moroomam ñi ëpp mérite ci làmb ji wane boppam ci ngor ci mm-hmm. jom ci fulla ak ci fayda dëgg la ñu ngi doon dégg ñu ne nag combat ak Tapha Tine bu ci génnewee ak defet du bëre ak Balla Gaye numéro 2 moom nag Amina kii xaw ma Amina Boy Niang yéen yàbbi ci boobee combat ak ci combat yi nga xamante ne aj nañ ko. waaw Boy Niang tey bokk na ci ñi nga xamante ne journal bi xëy na fësal leen Omar Diop comme ni nga ko waxee rek waaye nag fa fa nga xamante ne la njëkkee mooy dàq bi nga xamante ne dàq nañ ko combat yi ak ba mu koy maanaam bañ koy dàq lan la ko fekk muy def nee na moom nag boobu mi ngi nekkoon le 27 juillet ay vers 18 heures fekk nag mu nekk di entraînement di waajal digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di Tapha mu mel ni boobu ba mu ko yegee moom boo Niang nee na metti na ko lool lool lool nag waxuma la mettit gi mais ci façon bi ñu ko defee sax nee na metti na ko ba ci journée bi nga xamante ne moom waroon am le 25 juillet mu ni combat yooyu yëpp tey jii waroon nañoo mën a def le tout pour sauvé ko waaye nag nee na manque de considération moom moo am moo tax loolu ñuy am waaye nag ak lu mën xew nee na nañ leen gën a maanaam nañ leen gën a bàyyi xel dëkk bi lañu dëkk te dañuy participer ci développement dëkk moom Boy Niang wax na li nga xamante ne daal moom mooy ko métti torop torop maanaam métti bi nga xamante ne am na ko ci dàq bi nga xamante ni dàq nañ ko ci combat yi Omar Diop te boo seetloo Lamine wax jëpp benn wax la manque de considération maanaam jox ñu leen cër gi nga xamante ne ni moom lañ leen war a jox à chaque fois ñu ne mbër dof la à chaque fois ñu ne mbër duñ la considérer sax ci yenn nit ñi te itamit ñoom am nañ ci part de responsabilité mm. bu yëpp weesoo mm. ba tax na mu yëkkati ay kàddoom rek Lamine ci digganteem ak Balla Gaye numéro 2 parce que nag nee na da bëreeg Balla Gaye numéro 2 nekkul moom moo koy motiver pour mu daan Tapha Tine. waaw ak lu mën a xew daal moom nee na maanaam balaa muy wax sax ci lool noonu maanaam nee na amul lenn loo xamante ni mu ngi koy jiixi jaax instant bi moom moo ngi à ci digganteem ak Taphatine bi nga xamante ne gars yi ñu ngi koy xaar ci digganteem ak Balla Gaye 2 mi nga xamante ne gars yi ñu ngi koy xaar gars yi jàpp ne nag ñooñu ay luur lañ ci moom moom Boy Niang nag nee moo ngi à l'aise xelam ndax fa mu jàngee bëre maanaam yaram dafa foq ci diggante Cheikh Malal Ndiaye Eumeu seen booy Sèye ak ñeneen ñi nga xamante ne tey jaaroon nañ Pikine mbooloo maanaam moom ñoo ñooñu ay poids lourd lañ woon te ñooñu ñoo ko jàngal bëre te boobu poids la moo tax instant bi moo ngi à l'aise ginnaaw ba Aziz Ndiaye nag bëgg ko maanaam bëgg xaw ma daf ko bëggoon a teg pression xaw ma da ko doon yokk jom ci digganteem ak Tapha ba mu waxee ni bu ñàkkee combat boobu noonu Balla Gaye numéro 2 ak moom moom nag c'est la première fois ñu dégg Boy Niang wax ci waaye neen ak lu mën a xew nee na bëre ak Balla Gaye numéro nekkul ni moom moo koy motiver maanaam pour mu daan li nga xamante ne moom mooy Tapha Tine nee na combat boobu même bu dul woon combat am ak Balla Gaye numéro 2 bakkanam la ciy teg parce que xam na bu baax a baax combat bi fi mu ko mën a yóbbu wax jooju daal dafa mel ni yëngalul Boy Niang wax jooju yëngalu ko ndax xale la boo xamante ne ni Lamine gëm-gëm gi bari na lool. waaw fulla ji bari na lool. Mm. est-ce que seetlu nga ni booy ñaar ba mu dalee bëri ba tey benn song lay song. benn song lay song waaw ak lu mën a xew daana song Boy Niang sax boo gis tey ñu dañ naan day xaar mais booy xool ay combat préliminaire am comme ñu ma koy wax ñu bari ñu moom moo leen doon jëli kon loolu day prouver ne mën na jëli comme mën na xaar waaye ak lu mën a xew daal combat am ak Tapha Tine bi ëpp enjeu ci saison bi mën nañ ko tuddee combat boobu noonu ndax Tapha Tine dafa am lu ko ci xaar lu dul daan waru ko ci combat boobu. avec bu daanul am xaalisam ci làmb du yomb Omar Diop. waaw maanaam moom maanaam avenir am lay bëree. boo ñaa daan rek ko war ndax su daanee enjeu wu combat am digganteem ak Balla Gaye dina yokk kon combat boobu Omar Diop maanaam maanaam da nga leen di yërëm ñoom ñaar malheur au perdant. da leen di yërëm ñoom ñaar ñëpp Lamine. waaye bu ñu jógewee nag ci Boy Niang numéro 2 mhm. dañuy jàll ci ki nga xamante ne nii moom mooy Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass mhm. borom je suis un mu mel ni nag loolu mu daan wax moom journal bi da koo dëggal tey ndax ñu ngi ñuy ci enfance mhm. du ñu xamal que ni Gris xale la boo xamante ne ni la mel xale bu terrible la mhm. waaye ku a lekk la waaw da doon jaral lu nekk moom lekk waaw jaar jaari Gris Bordeaux ci ndawam journalu sunu lamb xëy na comme wolof Njaay nee na ko fóotoon mbëtt roccil bar moo tax nag tey mu xëy roccil ki nga xamante ne moom mooy Gris Bordeaux gannaaw bu mu ko defee ak yenn champion yi ci semaine bi yëpp moom nag Gris Bordeaux comme ni nga ko waxee ku gourmand la woon ku dëgëroon bopp la ku ñeme ab xeex la maanaam ak maanaam jaar jaaram daal ci lu bare bare bare bare journalu suñu làmb ñëw na ci ci xalim ak Abdoulaye Dembale Omar Diop mu mel ne nag nekkati am kii Gris Bordeaux doomu mbër la comme ñëpp ndax nee nañ ay nijaayam wala boog ñi ko mag fàttali nañ leen daal papam jaar na ci làmb avant muy dem daara te mbër la boo xamante ne kenn mënu ko woon daan bi muy bëre. mbër la boo xamante ne ni kenn mënu ko woon daan bi muy bëre kon Gris Bordeaux dafa doon lu li nga xamante ne moom mooy bëre gi. Mm-hmm. waa ñi xamal que ni ci carrière am bëri na ci ak roi des arènes daal di koy perte digganteem ak Yaxya Diop Yékini la woon. Hmm. mu nekkoon combat boo xamante ne ni combat bu gaaw la woon mu ñàkkoon ko par quatre appuis doon ko song Yékini suruxal ko daal di koy fàqat. la bëri woon ak ne moom moo di moom moo lu ko jiit tamit bëri woon na ak Baboy Baboy daanoon ko mu mel ni Baboy moom sax moo moo moo maanaam moo arrêté. élan bi nga xamante ni tey Gris Bordeaux moo ngi ci woon ndax booy xool bi muy bëre Baboy na ci dynamique de victoire bu doyoo doy waar moom Gris Bordeaux Baboy freiné na carrière am waaye nag ñëw nañ ci la nga xamante ne maanaam kii ay jaar-jaaram rek ca ba muy dugg ne ba jublu penku. waaw xam nga jublu penku. dugg néegu góor. waaw muy jublu penku ma nga xam maanaam maanaam perti ni mu doon perturbé ñi nga xamante ne ñoom ñoom la ñoom la ko seqaloon salbe ba nag moo xëy di wax ay waxam. nee na ba muy am huit ans la dugg ca néegu góor waaye nekkoon bokkoon na ci ñu gënoon a të. néegu góor xam nga xam nga nan ak lañ koy waxee. néegu góor. ci tur yi nga xamul. yi ma xamul. waaw ñaar rek laa ko tuddee jublu penku. waaw danañ ko tuddee nàndal. nàndal waaw ak lan waaw ñaar yooyu xam naa ko ci ak néegu góor. man daal nàndal paaka laa xam la ñuy nàndal. waaw yooyu yëpp dañ koy wax nag. Ah. waaw. na yow da nga da nga ak mag dama di looro looro. dama di looro looro dama dëkk ci dëkk ba. leneen li nga xamante ne ni wax nañu ko ci Gris Bordeaux Lamine mooy. nekk na troisième tigre de Fass. waaw bokk na ci mbër yi nga xamante ne nii fayeku nañu cachet bu rëy ci écurie boobu. maanaam cachet bi nga xamante ne Gris Bordeaux bi gën a rëy écurie Fass moom Gris moom moo ko fayeeku ndax fayeeku na lu mu néew néew combat boo xamante ne bëri na ko lu ma cent millions moom Gris Bordeaux def na ko journal suñu làmb daal yaatal na lu bari bëri bëri tey ci Gris Bordeaux képp nga xamante ne daal bëgg ngaa xam ci Gris Bordeaux loo xamul woon boo jëndee journal suñu ko ci xam moom Gris Bordeaux keneen ki nga xamante ne ni journal bi fësal na ko mooy Yékini Junior mi nga xamante ne ni Lamine doon na def parcours bu am solo ci làmb jékki-jékki amoon ci ay ndokk fi mu toll nii nag gisatuñu ko mu nekk mbër bokk na ci mbër yi gën a raar ci mbër yi instant yi moom Yékini Junior trois ans sans lutter moom Yékini Junior boobaak léegi gisuñu ko le premier janvier 2018 lañ ko gëjoon a gis waaye nag instant bi adversaire lay wër borom Ndakaaru borom États-Unis Canada moom Yaxya bu ndaw moo xool palmarès bi mu ngi toll ci 21 combats quinze victoire six défaites. yaakaar naa ne palmarès la boo xamante ni palmarès bu bu bu riche la. bu la kay. keneen ki nga xamante ni tamit journal bi fësal na ko mooy la Gétto. Hmm. Lac de Guiers numéro 2. Hmm. ndaxte nag ñu ngi ñuy génneel ay trois armes yoo xamante ni mu ngi ci moom yoo xamante ne ni bokk na ci li ko indi fi bokk. Hmm. muy xeex. muy mystique waaye muy défensivité bi nga xamante ne mi ngi koy utiliser suy bëri. nee nañ daal trois trois trois armes yooyu noonu bokk na ci li ko dimbali fii nga xamante ne moom la toll moom Lac de Guiers numéro 2 défensive na mystique na ba pare nag ñu ne xeexkat la moom Lac de Guiers numéro 2 Abdoulaye Dembélé moo xëy def jàngat boobu ci journal sunu laamu Omar Diop. waaye ba tey ci journal bu les arènes mu daal di ñëw ak ñu ci wër ndomba gi nga xamante ne nii la donking na ko ndomba Modou Lo ndax boo xoolee. mboolem adversaire boo xamante ne ni Modou Lo war na mën a bëre ak yow bu génnee ci combat ak Ama Baldé xam mu daan wala mu daanu Gaston Mbengue ak kooku bu am nañ lu ñu maanaam avance dox na seen diggante. Gaston Mbengue jox na wër na ndomba ki nga xamante ne moom moo di Modou Lo du ko tuddee war wër ndomba sax ndax yaakaar naa ne Modou Lo ak lu mën a xew mu génne ci combat ak ki nga xamante ni moom moo di Ama Baldé war na mën a amaat combat. Modou Lo Modou Lo Boy Niang combat Modou Lo Tapha Tine combat la. Mhm. Modou Lo Tapha Tine tey jii Modou moo xam moo daan Ama Baldé moo xam Ama Baldé daan ko loolu combat la. war naa mën a am foofu adversaire Ama Baldé ak lu mën a xew moo xam mu daan Modou Lo moo xam Modou Lo daan ko digganteem ak Gris Bordeaux combat la. Mhm. revanche am ak Tapha Tine combat la ak lu mën a xew daal ay jàngal yoo xamante ni wute gis mooy waral marchandise jar ak a xew journalu Les Arènes moom wax nañu ne ki nga xamante ni moom moo di Modou Lo Gaston Mbengue wër na ko ndombo te buddi ba ca kaw dóor suufa di des ndax adversaire yi nga xamante ni ñoo nekkoon ay potentiel adversaire yëpp yëpp Gaston téye leen Omar leen waaye leneen nga xamante ni tamit gis nañu ko mu nekk genre conflit de génération mm-hmm. Balla Gaye numéro 2 dominé na grand yi ndaxte nag Lamine boo xoolee mag ñi fi nekkoon ñu doon leen woowee ay champion te ñu defoon ay preuve ci làmb ji bi leen fi Balla Gaye fekkee daf leen a puus jëlee leen fi. Mm-hmm. waaye loolu mu def bombardier la B52 itamit daf leen koo dàbbali ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy xale yi. menum Eumeu Sène moo ko ci daal. waaw moom booy xool tey jii Balla Gaye numéro de bu dominé na garant yi waaye nag dafa am benn garant boo xamante ni moo ko tëwagum ci garant yi. muy B52 borom guddi guddi muur ndax Balla Gaye numéro 2 ku ne xam na ni moo daan garant ba Yékini moo daan garant ba Tyson moo daan garant ba Baboy daan garant ba wala père ba père moom Balla Gaye numéro 2 gannaaw ba mu daanee ñooñu nag ba dal ci Bombardier benn grand grand boobu dafa freiné li nga xamante ne moom mooy carrière waaye yamul ci euh, euh, Balla Gaye moomu noonu xale yëpp moom bombar Bombardier daanam dafa ruube ci seen kaw waaye Eumeu seen rek moo nekk exception ba Omar Diop. Eumeu Sène a nekk exception ba te newoon na ko. objectif ba ma amoon mooy nekkaat roi des arènes nekkaatoon naa beneen ba ca toppoon mooy xool xale yi gën a tëj ci ndakaaru daan leen te yooyu yow mii ci yow laa échec woon te ci yow laay ñëwaatee mu def ko yaakaar naa ne nag leerali loolu rek la woon tey leerali loolu rek la woon Omar Diop maa ngi lay ziyaara bu baax a baax di la bëggee di bëggee waa xew-xewu làmb ji ñoom Abdou bu xarañ loo laay bu deef maam Balla Gueye tali maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit suñu waa groupe groupe Lutte TV ak Lutte TV Diaspora Omzo bu Garga Serigne njur bu Osod maa ngi lay bëggee bëgg di bëggee tamit ki nga xamante ne moom moo di Tuuti Yaasar maa koy bëggee lu bëree baree baree bare du ma fàtte tamit ñi nga xamante ni ñooy commentaire chaque jour ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax di leen bàyyi xel ndax nag olof Njaay nee na kuy wax kuy déglu mooy mbokkam moo tax ñu ngi leen di bëggee lu bëree bëri di leen ziare ñi nga xamante ni nag duñu bàyyi commentaire yi Modou Pouy ñu ngi lay bëggee Pape Cissé Yacine bu Balla Gaye numéro 2 bëggee nañ la lu bëree bëri bëri di bëggee Bouba Fall Yoro Kanté di nuyu Arouna Camara borom Kaolack Badara Kane bëgg nañ la Saliou juuf am di jong Cheikh Bass borom Kër ma sar Demba Diop bëgg nañ la Moustapha Lay Cheikh Ndiaye di nuyu tamit ki nga xamante ni moom mooy sëñ Cissé bu Serigne Babacar borom ngénte bi doomu ndeyu liiru Diane maa ngi koy bëggee bu baax a baax di ñaanal xale bi yàlla defal ko sutura defal ko barke di nuyu tamit doomu ndeyam Mansour kase borom États-Unis borom Kolda Mansour Kassé bu Modou Lo Mansour Kassé bu Lamine Mansour Kassé bu liiru jaan maa ngi koy bëgg lu bëree bëri di nuyu ki nga xamante ne moom moo di moo njaay directeur série Madeleine maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziare bu sekkee co borom États-Unis bëgg nañ la lu bëree bëree bëri mon ami mon frère di nuyu tamit ki nga xamante ni moom moo di El Hadj borom DEA comme ni ma ko waxee maa ngi koy bëgg bu baax a baax di ko ziare lu bëree bëree bëri bëri du ma fàtte tamit waa waa waa waa waa groupe Ndiaye Pro ñoom am di Moustapha ñoom ñi nga xamante ne lu yàqu rek maanaam ci groupe bi ñoom ñoo ko yàq Mouhamed Thiam sama booy la depuis États-Unis maa nii bu baax a baax a baax di ko ziare waaye nag duma ma fàtte ki nga xamante ne moom mooy ramdaan Ramdan Faquman bu mag a mag bi bëgg nañ la Jali Jàmme depuis Soudan doomu nday man leen Diagne ak aji Fatou maa lay bëggee bu baax a baax a baax di nuyu nag sama yaay Adja Gass borom Gambia di nuyu suñu père Ndongo Cissé ak suñu père Edi John di jox ñëpp rendez-vous suba incha allahu rabbi